bon man euh, maa ngi tudd Pape Diop ñu gën ko xam sax ci bassir Diop laa vrai bi mais Pape Basir job la ñu gën di wooye nekk le maire de la commune de Thiès Est. Diop comme ni nga ko waxee yaay maire Thiès Est euh, biñ la delloowaat ba tànk geeg léegi fan nga toll ci liggéey bi. waaw fi ma toll ci liggéey bi defe naa ni def nañ fi def nañ ci ci euh, at yi at yi ñu jëlaat deuxième mandat def nañ fi ay réalisation yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant yàlla. ndamawuñ ci nekk waaye nag euh, ku avancé tam ah wax dëgg yàlla loolu jar sant parce que euh, fii ngeen ñëw gis ngeen Case des Tout-Petits bi nga xamante ni ci lañ ko def ci suñu deuxième mandat gis ngeen tam euh, champ de course ñu gën ko xam hippodrome Diaw ma kodd ngeen gis terrain foot bi nu fa def gis grille de protection yi gis éclairage bi nu fa def projecteurs yi mu nekkan loo xamante ni tam tumuranke woon na Thiès. manqué woon na fi ba vraiment defe naa ni la population de Thiès salué nañ ko surtout waa ODCAV dañ defe naa ni fi lañ defee seen i match yi ëpp importance yëpp te ñu ngi xalaat tam continuer fii match yi parce que amaguñu terrain boo xamante ni wala stade boo xamante fii au niveau de Thiès bu ñu mën a defee compétition yi kon loolu réali bokkoon ci réalisation yi nga xamante ni def nañ ko ren rawatina marché xel ga defe naa ni gis ngeen ko. mu nekk marché boo xamante ni vraiment dañ naan benn la ci Thiès donte ni royul tellement comme marché central ah mais li ñu ñaan yàlla aussi itam euh, liggéey ba ñëpp fa ñëw gis ko surtout ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu commerce ñoo ko fa teewalan monsieur Diaw visité na marché bi euh, bëgg na ci parce que surtout liggéey ba donc mu nekk liggéey boo xamante ni nekk na liggéey bu jaar ci yoon. liggéey boo xamante ni yéene lañ ko defee ba population ba fa nekk defe naa ni loolu lu am nañ ci ñoom it mbégte ba ñu ngi yaakaar aussi continuer yeneen îlot bi parce que y a ilo la un ak deux bu ñu paree jéem a yëkkati ci kaw tam ay centre commercial ñu ngi waxtaan ak euh, entreprise bi ko defaroon uniquement pour gën a moderniser foofu waaw donc ci wàllu éclairage aussi itam def nañ le maximum possible boo xamante ni tellement que lii suñu problème rek mooy réseau électrique bi mais nag comme gis nañ tout récemment le ministre de l'énergie Thierno Alassane ñëw fi di wax ni am na projet euh, euh, éclairage électrification donc suñu xel dina ci dal parce que ànd nañu def des visites ñun loolu les communes li nga xamante ni moo ci doon suñu wàll fekk na ñu ngi ci donc nag état bu ñëwee nii da koy def war garam la donc loolu dañ ko saluer parce que nag euh, c'est le Sénégal donc euh, loolu mun ci ñàkk surtout nag lu nga xamante ne nag dafay yëngu ci wàllu insécurité surtout lu day éclairage wër ci kenn wër ko ci jiitu. dafa mel ni aussi def nga fi ay aménagement yenn place. waaw def nañ fi ay aménagement yoo xamante ni ñu ngi ci parce que bu ngeen gisee comment dirais-je wetu euh, wetu stade bi foofu jaay ngooñ lañ fi doon jaay. aménagé nag décrépit nañ ñi fi nekkoon am na lu ñu fa prévoir donc parce que foofu bu ngeen xoolee ni mu mel parce que mooy këru Thiès Est parce que foofu amul benn espace boo xamante ni mën nañ ko aménager mu niru leen foofu parce que daral bi gis nga ko à côté donc beneen bi ci des yooyu yëpp dañu bëgg euh, aménager ko pour fexe ba def fi dara nga ñëw ci rond point jet d'eau bi nga xamante ni ci fin d'année bi lañ ko def te it arrêté gu na parce que nag l' dafay war a continuer pour ñu war ko gën a améliorer bon liñ ci mébét def fi ay chaise ay banc yoo xamante ni au moins nit ñi dañ xam ni parce que nag lu day ni ville Thiès dafa am manqué na espace yoo xamante nit ñi di fi mën a ñëw di e, féexlu ak yooyu moo tax e, G2 bi keroog bi mu ubbee ci le 31 on a reçu beaucoup de félicitations ak i encouragement yoo xamante ni population bi dañ ko soxla woon bon parce que boo xoolee ci découpage yu Thiès côté infrastructure dafay manqué amu fi woon ba dafa bokkoon ci programme ci 4 4 44 bi donc euh, yàlla def deuxième tour yi deuxième tranche bi yàlla def sottiwul loolu moo tax ñu tumuranke ay espace vert yoo xamante ni nag ak ay place publique yoo xamante ni nit ñi di ci mën a toog ñun nag sunu intention la ñu ngi ciy taxaw bu neexee yàlla ren ji dinañ ci gën a euh, sunu bëgg-bëgg yi ba nga xamante nit ñi di mën a xam ni eh, le maire ak équipe am nañ intention pour gën a bàyyi xel la population. ci wàllum projet est que am nga ay yeneen mébét pour pour ndaw yi surtout. waaw parce que déjà ñu ngi maa ngi am benn ñu ngi am benn convention bu ñu war a signer bu yàggu dara avec surtout nag avec des bourses pour étudiants yi donc tout récemment am na benn ONG bu ñu nekkal di waxtaan pour ay ay bourses yoo xamante ne pour jàppale leen ci parce que nag defe naa ni njàng mi am na importance ba nga xamante ni waroo mën a xalaat te sóoraale woo donc loolu semaine passée rek lañ ci nekk pour waxtaan bi ba ñu commencé nañu entamé dossiers yi pour jàppale étudiants yi pour dimbali leen ci ay bourses soit muy bourse entier au niveau national et international donc bi ci des it euh, ci biir. Euh, complexe euh, hippodrome bi am na projet bu ñu nekk am nañ yenn projet yi daal bari na parce que y a beaucoup d'entreprises yu ñëw surtout nag le projet solaire am na ay italiens yu ñëw am na ay canadiens yu ñëw ñu ngi nekk di waxtaan pour ñoom parce que nag euh, loolu lépp ay projet la yoo xamante ay meubles la lu ñu yor loo xamante ni lépp it ndaw ñi dinañ ci gis seen bopp population bi dinañ ci gis seen bopp. donc euh, biir euh, hippodrome bi aussi bu ñu xoolee espace bi fi nekk xalaat nañ fi def ay complex yoo xam te ni comme CNEPS euh, parce que foofu gis ngeen espace boo fa ne parce que tam am na équipe bu ñëwee war nañu am ay logement ci biir yooyu am na ñu nekkal pour waxtaan parce que nag lépp c'est des projets nag di ñaan yàlla mu sotti.